ñu namm ci suñu réew mu baax moomu yàlla defal ñu ko muy ndam incha allahu rabbi euh, gaa yi nag tey dañu ñëwaat rek ci waxtaan mën naa ne sax amaana peut-être du waxtaan sax waaye gën a sonj la sonj ndax toujours doomu aadama moom boo leen àndee te ngeen bokk combat te ngeen bokk li ngeen di xeex rek donte peut-être moom mi ngi lay soññ waaye dina baax yow it boo amee yéene bu baax te nga mën koo soññ nga soññ ko waxtaan bii nag li ko waral c'est parce que dañu gis benn flood maanaam bu ñu nee flood benn attaque bu mag bu pandémie sax lañ koy tuddee ci média yi parce que xam nga il faut ngeen bàyyi xel média sénégalais yi bu baax a baax a baax a baax waxoon naa leen ko keroog dama koy bamtuwaat quatre-vingt-dix pour cent des chroniqueurs quatre-vingt-quinze pour cent des chroniqueurs et des journalistes travaillent pour Macky Sall parce que nit tudd na tur Ousmane Sonko rek ne ku baax la bu demee élection day gagné cela ne veut pas dire que kooku Ousmane Sonko lay liggéeyal parce que boo dégloo seen waxtaan yi dem ba ci biir di nga trouver ne seen waxtaan yi ay galgal la duma ma bëgg di ko wax nag sax waaye dinaa leen jox misaalu ku mel ni Pape Moussa Sow Moussa Sow chroniqueur dee leen ko déglu bu baax Pape Moussa Sow élément wu mag man xam naa lépp man damay xam lu ba toogaat am na yeneen nag am na ñeneen bàyyi leen déglu chroniqueur bandi yi ñuy nasaxal seen xel yi di wane ay nit naan waaw Ousmane Sonko bu bañee kii bu ñëwee non nu notre seul et unique candidat c'est Ousmane Sonko brandiruñu kenn fasaluñu kenn katiwuñu kenn yóbbuwuñu kenn benn candidat la ñu am mooy usmaan Sonko chroniqueurs yi li ñuy def ni yëpp ab Cheikh Sérim Yérim Seck woo ab Maimouna Ndour woo ay ab ab euh, euh, doomu xaram jëlee xon woo ak keneen woo ak keneen woo ay bandi la ñuy dajaloo Aliou Sow mu wal fajri moom ko euh, maanaam feeñale moom nëbbatu ko moom lui il est devenu un prostitué xam nga dafa am lu tudd comme niñ koy waxee un mercenaire du micro mais lui il n'est plus un mercenaire moom c'est un prostitué du micro dafa am mercenaire am caga mais moom dépassé na étape yooyu yëpp moom prostitué du micro la donc an na doomu aadama yoo xam ne bu leen leen déglu xam nga nit kuy nasaxal sa xel mais du nañ ñu ne l'islam daf ñu ne bu ñu naan sàngara ñun ñëpp mën nañoo juboo loolu n'est-ce mais lislaam daf ñu ne aussi bul dem ci baar parce que boo demee ci baar daf lay encourager pour nga naan sàngara faiblesse nous les êtres humains saa bu ñu wéetee ñu def dara de même manière lislaam daf ñu tere ñu déglu ay naafeq seytaane lu tax ñu ne ñu bul déglu musique parce que bëgguñu ngay déglu slow music sa awra di ci jóg taxaw sa xel di dem ci ay loof sa xel di dem di sekk ak jigéen loolu moo tax ñu ne la bul ko déglu dañ koy déglu nag mais dañ lay ne nga moytu tentation bi donc yéen ñiy déglu mercenaires yooyu c'est vous qui vous mettez dans la merde kuy déglu mercenaire yow yaa def sa bopp dans la merde parce que nit boo ko dégloo saa boo ko dégloo mu jaxase sa xel lu tax nga koy déglu boo dégloo nit yow yaa ngi toog ngay déglu doomu aadama bi nga jël sa temps yëpp jënd sa crédit consacré ko di ko déglu mais buy jaxase sa xel lan moo tax yow ngay dem di ko déglu parce que xam nga luy danger mercenaire mercenaire day wax li la arrangé di wax li la arrangé di la yeetal di la yeetal ngay ñëw di ko déglu di ko tàccu bravo benn jour mu wax benn ba naarul laay boo xam ne day jiixi jaaxa sa xel yow ba nga dee sa xel bi dootul leer man am naa ay nit yu may woo ba léegi di ma laaj naan ma mais lu tax Ousmane ko dem fa donc loolu mooy mercenaire xam nga déjà yow yaa ngi ci ba léegi loo xam ne leeral lañ ko mille neuf cent ajak yaayu mbill mi sax dem na ci attekaay bi ba leeral ko attekat bi ci boppam xam na ne sos na attekat bi ci boppam ba mu amul lu mu tappee toppee Ousmane ko dafa créé lu bees teg ko ko loolu mooy travail yu mercenaire mooy jiixi jaaxa sa xel donc loolu moo tax ñun tamit ñu am ay responsabilité bu ñu ñëwee ñu war a leeral doomu sénégalais boo mu ñëwaat ñu takkaat micro yi di duulaka dajale te pourtant moom ci boppam nee na leen fi barki dem moom il n'est pas n'importe qui dañ koy jox terrain dañ ko jox terrain nee dañ ko jox xaalis bu bari moom day liggéey mais waa APR xam nañu jeexal nañu donc ñooñu c'est des gens comme ça qu'on a ici ñii wax ni yëpp ñoo la gën a xam ne ñun duñu dem élection ak Amadou Ba Amadou Ba dañu duma ñoom ñoo la gën a xam lool yow yaa gën a yéen a gën a xam ne man ak Amadou Ba rek ci ay élection man Ousmane Tounkara ak Amadou Ba balaa une heure ma du ma duma ko balaa balaa neuf heures du matin ma duma ko kooku nu muy demee élection ak Ousmane Sonko ba nga déggee waa APR ñuy wax ba léegi est-ce que dañ leen mës a dégg ne waaw Sonko de billaay bu ñu demee moo élection dinañ ko lebali déedéet mooy du bokk mooy dañuy takk ay loxoom yeew ay tànkam du bokk loolu mooy seen débat débat boobu pour la parce qu'ils savent que moom mel ni ñaari nit nopp benn soxna pompa lañ koy wax ci ñun saraxole yi pompa waaw kii yor xaalis bu bari am doole waaye soxna si de doole bi la nopp pauvre bi ki amul xaalis la nopp wax leen ma luy résultat yi borom doole bi forcé lay jaay parents yi rey seen bopp fële waaye boo moytuwut de soxna si naqar lay rey yekkale parce que kii la bëgg moo tax ñu leen di ne l'amour est aveugle notre amour pour Ousmane Sonko est incontestable benn doomu aadama mënu koo dindi benn doomu aadama mënu koo benn doomu aadama mënu koo jaxase ñun Ousmane Sonko la gëm moom lañu bëgg xam naa Sénégal yëpp nag samay xarit bari nañ fa samay am di nañ fa mais c'est Ousmane Sonko l'unique et le seul candidat qu'on promouvoit point donc bàyyil dof yi bàyyil dof yi mais man damay moromu amadu Ba nga naan ma trois candidats man fan laa jëm ak Amadou Ba man Amadou Ba maag moom bu ñu demoon élection dix heures du matin ma duma ko loolu man damay moromu Amadou Ba ma il faut ngeen concentrer wu sur l'essentiel ngeen bàyyi band yi ngeen di déglu ces chroniqueurs est-ce que xam ngeen télé Bougane Gueye Dany bi léegi ca télé lan la télé caga la Bougane léegi dafa jël téléem bi ci suuf muy alimenter ay journalistes ak ay